Euh, loolu nag li ko waral mooy benn société boo xam ñu koy euh, duppee saa béton et Kandé moom ay béton lay defar foofu la ci euh, benn quartier bu nekk foofu la ci Rufisque bi mu ñëwee foofu nag boo ko faa def lenn ci askan wi dañ na ko fii doo ko fi defee ndax lii dafa nekk loo xam ne day indi ay problème ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk leen jox ay feebar tey su day yàq jaww ji beneen kuréel gi ñoom dëkk ci même koñ ba dañ na ko nag ñii nangu nañ ñu def ko fi ndax dafa nekk loo xam ni dafa baax ci askan wi te day tax ñu mën a indi ay euh, liggéey bi loolu amee nag ki ñuy wax Mame Goor Diazaka bi amee benn ko gi ñëw fas yéene def point de presse buntu usine ba moom mu ñëwoon euh, ngir euh, fexe ba loolu du fa am bisil bi tudd Amidou Kane moom jàppanteeg Mame Goor Diazaka ci la ko maam Goor waxee wax yooyu ñu ni mooy ay saaga ak di ko di ko menacé de mort maanaam da ko xupp ne ko boo deful dana danaa jël sa bakkan kon loolu moo fi ratoon ci ay